ay travaux ñàkk taxawaayu alkaati ci kaw tali bi dem ba doon li yokk jafe-jafe askan wi jamono ji yenn ci ay bërëb fii ci ndakaaru doon lu jafe lool ngir chauffeur si li ko waral doon ay embouteillage yu dem ba sax gàllankoor seenub liggéey muy beneen oto ba tamit bi nga xam ne yaa ngi def transport da nga xam ne yow ci li ngay liggéey ci nga mën a jariñoo ci nga mën a am tamit loo mën a yóbboo sa kër vraiment gàllankoor yi moom métti na métti boo xam ne foo ko àpp rek weesu na ko. les gens souffrent euh, démb rek lundi bi rek nit ñi lu ñu daj sa embouteillage tu te la question fan la nit ñi di jaar déjà il barre il dañuy barre tali bi comme par exemple le cas de la Vérène sur la Vérène bañ barré yenn yenn zone yi nga xam ne nañ si doon doon tourné waroon nañ génne nit ñi fi ñu tourné. tey jii booy defar pont mais boo rombee Saint-Lazare nga def fa pont mais ubbil benn bretelle bu ndaw ku génn Liberté extension mën fa jaar ku jugee VDN bi bëgg jël Liberté extension nga jaar fa dem euh, rond-point Yoff itam pare. mais démb fii ci VDN bi fii oto demul oto dikkul 30 minutes oto benn oto duggul ci suuf euh, kii bi soo passé Elton bi benn oto demul. gars yi defar tali bi aussi bu ñuy defar tali war nañ ñëwaat di xoolaat population bi prenez la cas du rond point bi nga ne xam ne moo ne Kër Damel boo jugee côté dakaar di dem wetu pont Foire une fois nga wàcc pont du pont Foire da ngay perdre loolu lu ko waral dal bi. dal boo xam ni ñaata ñaata ñaata ñaata mètre la jël alors que dal boobu bu ñu ko dindi woon les véhicules yi jaar suuf pont bi dañuy dem donc man je vois que je je me pose la question. jàpp ni li nga xamante ni moom mooy euh, li ko sabab aussi doon euh, liggéey bi état bi di liggéey aussi yenn ci tali yi. chantier yi bokk na ci chantier yi bokk na ci mais aussi tali yi nu ñu leen defaree baaxul. travaux yi dunoo bëri te travaux bala nga koy def travaux baax na lool mais nag na nga xaal yoon woo xam ne nii dina tax ñi doon jaar foofu. suñ fa duñ gisee travaux yi dina gis ay déviation yoo xam ne nii dina te mën a jaar loolu dina yombal dem bi ak dikk bi mais boo xëyee rek baare benn route bàyyi benn bi muy dem te avant ngay def loolu éviter woo benn route ba nga xam ne nii mën na ko mën na koo dimbale ba nga xam ne dëgg la dina métti mais méttiwaay ba du demee noonu loolu daf ciy am solo. ay chantier kenn du ko songee nii problème bi yëpp lu ko indi mooy chantier yi gis nga VDN bi gis nga rond bi nekk euh, fii ci boori euh, ci boori ci boori Elton VDN bi mais rond bi dañ ko yéen lu mu attanul. imaginel ku bëgg dem Liberté 6 doon jël VDN bi pour dugg Liberté 6 extension ñëpp fii la ñuy génn ci rond bi nekk ci VDN bi rond point bi tëj nañ ko oto yëpp léegi dañuy ñëw di déverser wu ci foire bi pour mën a jaar ci àll bi pour mën a dem. yile citoyen nag di ñaan autorité yi ñu amal yenn ci ay réaménagement ci wàllu yoon su ko jaree sax def ay voies de contournement. ngir mbégte askan wi. foo faut ñu am ay mesures d'accompagnement xam ma indi euh, wàcc ay nit même bu dee ay GMI lañ parce que nit ñi bu leen gisee célébré dinañ dawal correctement mais bu leen gisul nu leen neex la ñuy def donc indiscipliné chauffeur bi tam chauffeur yi tam ngi si biir loolu moom nit mënu ko ci dindi. li ñuy ñaan yàlla li ñuy ñaan pour ñu defal nu ko moo koy wax directement di ko laasi ministère de l'intérieur mi nga xam ne nii moo moo moo moo couvrir armée bi yëpp rond-point yi ñan ci def ay ak i policier ñuy dimbale parce que nag. Euh, lin naan tamit euh, seetlu nañ ni rond yi ak yooyu bu amee ay maanaam ay montage ak yooyu euh, embouteillage yi dina wàññeeku non day wàññeeku baa sax wala sax du am mais bu fekkee ne am rond yi doo ci gis benn policier doo ci gis benn gendarme loolu tamit doxul